bu ma gis def nga toog def na hôpital ñu nga loxo bi damm nii nga toog nii mais. ñu plâtré ko plâtré ko waaw. c'était au niveau de la cave image boobu. ak tank bi waaw tank bi waaw. et tout ça c'était au niveau de la cave. mais condition yooyu xam man ba léegi man mënuma comprendre yow noonu nan la lan la mën a yóbboo si juge de dégg naa ñu ne juge bi moo wàcc sax pour mën a jël. ah. Mhm. pour mën a jël sa audition pour mais c'est c'est compliqué.

mais dañ lay bàyyi ndaxte lii ñu la def du ñu am xolu placé la dañ lay bàyyi kon nga ñibbi ma ne ko c'est là que vous n'avez pas compris non la bàyyi woon na ngay wax merci ma ne ko gis nga nii lu ñu ma def nii moo tax sax may dem kaso mais pap dara metti yu ma de un magistrat de siège mhm. indépendant total nga am ko ñu lay wax defal ngay def et je ma nommer Mamadou Seck damay cité turam pour l'histoire defal mu def Mamadou Seck quest nga la la def. Mamadou Seck xam que uh-huh. le dossier est totalement vide que le dossier bi dafa vide moo tax mu placé ma sous mandat de dépôt pendant 9 mois presque woowu ma ne ma kaay nga auditionné lii lañ lay toppee te procureur lii la teg ci table bi comme élément de preuve amut. maanaam dafa ñëw rek ne tu es placé sous mandat de dépôt da ngay signé wala c'est comme ça que ça s'est passé Mamadou Seck. non non non attends attends attends faut que ça soit dafa wàcc ci cas bi indi le ne na la tu es placé sous mandat de dépôt jeex na. expliquer Sénégalais que ni so démé cave waaw su féké ne sa dossier dafa nek en instruction. da nga wara a da nga yéeg quoi ba yéeg ci bureau Mamadou Seck. def naa ko ñetti yoon. merci beaucoup man nak lutax mënu ma woon yéeg parce que sama état de santé. Hmm. pap suma doon ñew tribunal gendarme yi dañ ma doon japp wala yeneen manifestants ñu ma doon transporté loo. Hmm. ñoo ma doon japp ki japp tank bi ki japp tank bi ma longu len ni ñu yéegal ma ci auto sumay may wàccee noonu may waccé lee sama yaram bi foo laal da doon metti ak damm-damm yéeg yépp Mamadou Seck bu mu xamee loolu xam ne ma yéeg je suis je ne awma ma ci condition pour mën a yéeg dem ci biroom dafa wàccal boppam gis ma condition yu ma nekkee une tête totalement bandée de bout temps bout une euh, une main sama tànk bi ñu plâtré ko ma yor béeki damaa dem ba gars yi dañ ma ne yow mënoo dugg ci biir cellule kii di cellule yi parce que dafa bëri nit te yow sa état de santé permettre la ngay dugg foofu xam nga fan lañ ma toogloo. Mhm. fi avocat su ñëwee di la seet si ngay toog foofu laa toog man man bokkuma woon ci ñu doon dugg ci cellule yi ndax sama état de santé mayu ma ko malgré tout ça sama avocat maître Moussa Sarr wan na ko vidéo torture wan ko image yi ba pare laaj ko ay éléments d'indice ay indice sax. preuve prouver mais ay commencement de preuve procureur a le dossier bi viser ay articles il sera lié lié parce que le dernier c'est-à-dire le euh, dernier qui ça revient au juge. ah la décision la, décision. de placer quelqu'un hmm. ça revient au juge d'instruction parce que nous sommes là sous contrôle judiciaire. comme moo koy bañ fi Aliou Sané sous contrôle judiciaire. Hmm. après le procureur de fait appel.

Non, c'est le procureur. Lui, le procureur a demandé ton, mandat, ton placement sous mandat de dépôt, de te faire de me placer. Mais vu ton état de santé qui est grave et tout ça, je vais un pavillon spécial. Je suis placé au moins, rebus, ou à une prison. Le Pavillon spécial, je m'a placé directement dans l'état de santé de mélon. Madame, Madame, pavillon spécial. C'est comme ça que ça s'est passé. Image, les Sénégalais, ils disent, ils sont tous les Sénégalais, ils sont luko raw muy vidéo bi yor nga ko. dañoo xam nga ni nak depuis suñu déclaration bi ñi ngi melni ay dëmm yu jëfur façon façon xookatal bu nek ñi ngi koy jot jamono ji ah bon. ba tay lañ gëna nek ci insécurité moo tax dooy gis sumay dox. mais mais mais mais ce vidéo boobu denk ko. mais ñoo wolu lool nak la bëgg a ko Sénégal. non non vidéo bi nekkatul sax Sénégal. très bien voilà. lool la bëggoon léral ko pour ñom ñu xam ko xam ni ñun du ñu ay on n'est pas des bêtes. ba yor vidéo bu toll noonu un élément très compromettant. contre la gendarmerie nationale. contre ces autorités qui ont donné l'ordre à ce que nous def ñu lu contre l'état du Sénégal nous devons moom ci suñu ay téléphone non on n'est pas assez bêtes comme ça. vidéo boobu Juan Branco vidéo bi mu ngi ci am vidéo boobu ñeneen ñu nekk extérieur te du ñu tudd ñu vidéo boobu. te vidéo boobu bés bu génnoon sénégalais yi pare ci Macky Sall ay vidéo boo xamante ne dangay gis ay homme de tenue ngay gis seeni ay kanam ñuy wax kooku kuy filmer daf ma filmer ba ci yàgg jël leen ñoom ñëpp continuer waat di ma filmer kenn ci gendarme yi. ñuy rayal dóoral comme de nangul wax nañ damm tànk yi. nervi yi nga gis ay nervi ak ay gendarme def coalition loolu baaxul rafetul sax ci deru gendarmerie.